comme ni leen yàlla sàkkee woon kenn par kenn di juddoo mbooloo par mbooloo di juddoo ñooñu ñëpp buub nañ leen a gën suñu borom. wa taraku ma xawalnaakum waraa zuhurikum. ndeysaan li leen yàlla dénkoon ci àddina lépp wàcc ngeen ko ci seen gannaaw yi ah alal ja fa la des lal ya fa la des kër ya fa la des daamar ya fa la des koom-koom ma fa la des lépp fa la des taraku ma xawalnaakum waraa zuhurikum sunu borom ne wa ma narnaakum shufaa'akum alladina zaamtum annahum fiikum shurakaa te moo ne man te ñun dañu fay gisut sax ñi ngeen xam ne ñoom da ngeen leen defal borom gisut borom ñoom dañu leen gisut ci fii ñoom dañoo waroon a jiitu ngeen toog ci seen gannaaw su fekkee ñoom wér nañ ni ñoom tigi morom yi sunu borom la wér nañ ni tigi am nañ cër ba sunu borom ba man sunu borom di def ñuy njëkk sunu borom di wax ñuy dind sunu borom naan ñëw ñu ni ko dundoonu nee la defee ko nii ñoom dañoo war a jiitu ñëw melee leen ci kanam suñu borom suñu borom ne laqad taqattaa baynakum seen diggante ya dog na wa dalla ankum ma kuntum tazumun la ngeen doon foog yàqu na sànku na réer na neen na qaala alladina suñu borom ni qaala mu wax alladina gaa yi nga xam ni xaqa alayhim alqawlu dogalu mbugal mu tàbbi ci seen kaw dal na ci seen kaw xaqa alayhim alqawlu mooy wax di dëggu na ci seen kaw mooy yàlla dina leen mbugal comme ni mu koy waxee walakin xaqa al qawlu minni la am la am na jahannam min al jinnati wan naas ajmain ñooñu nga xam ni dogalub mbugal njëkk naa tàbbi ci seen kaw ñuy taay taay sax te ñooy njiit yi tamit teg ci nag bu ko bàyyi fàtte ñu ne rabbana yow sunu borom haulaai gaa yi nga xam ne ñooñu topp mooy njiit yi njiit yi ñooy wax de haulaay gaa yi ñu topp ah ak way naa nga xam ne dañ leen a sànq ak way naa um sànq nañ leen kama a way naa comme ñu ne ni ñu sànkoo mbir mi ni ñu la kese de xam ngeen wax ji lu ko ëndi mooy iblis alayhi min allah milliarat laana fi kulli lahza bu yowmal qiyaamee dafay def ab discours sunu borom mi ngi koy nitil wa qala alshaytanu lamma qudiya al amru inna allaha waadakum waada alxaqi wa waadtukum fa axlaftukum day def discours bu fort xumb lool lépp di ko dégg mu ne inna allaha seen borom yàlla waadakum waada alxaq moo leen digoon digab dëgg wa waadtukum ma digoon leen fa axlaftukum na xéembaar loolu olof na na xéembaar fa axlaftukum mooy nax naa leen gis nga ni mu saay saay fii ne mu jëm nit ñi de yàlla digoon na leen digab dëgg te yàlla bu mu digale na ko def wa waadtukum ma dig leen fa axlaftukum na xéembaar tey nag bu ma kenn nag joxoñ nag wax ba wax de jeex mu ni fala talumuni wa lumu anfusakum bu ma kenn joxoñ baaraam di ma yedd wa ma ma ana bi musrixikum wa antum musrixi ah commencé naan leen nag forcé ma leen ci mooy yàlla gi waaw dama leen woowoon kese ngeen fekk ci ma ma gi jëm muy day ni yéen suñu borom joxoon am xel digale nag jaamu yàlla ngeen laan amu leen ku ngeen topp su dul man bu ko defee foofu lañ koy fëggee ay mbol rek mu commencé di yuuxu yuuxu jiitam yuuxu yeeg mbooloo topp ci ginnaawam suñu borom laa tad'u al-yawma suburan wahida wa ad'u suburan kasira benn yuuxu wóoy benn yoon suñu borom muy doyut de wax leen ko lu baree bari ndax lu ngeen ko wax rek musiba dina kat di gën a tàbbi ci seen kaw léegi nag foofu mbooloo bi nga xamante ni ñoo ñu néewoon doole dañuy kalaame yàlla ñin ñi amoon doole wa qala alladhina istad'afu alladhina istakbaru gis ngeen ko ci alquran muy baa di jaabante lu ba di di ñëw lu bari maanaam ñi nga xamante ni ñoo néewoon doole dañuy wax suñu borom naan haulaay alladina adalluuna ñi ñoo ñu sànq fa aatihim ba'da min al azab ñii ñoo ñi ñu sànkoon kon bu fekkee mbugal daa ñëw di téeméer ñun da nga ñuy jox juróom fukk waaye ñii téeméer ngeen ñu ngi mbugal juróom fukk parce que ñoo ñu sànkoon coow li ni kur kii nan maa la sànq kii nan sànkuma la loolaa waral ñu nekk suratu xaaf ñëw laa taxtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil ma'ruf suñu borom daa leen nuppiloo tëj leen seen gémmiñ ñi fii du biir barabu coowaloo wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id tëkku yeeg tiitala yeeg yëpp ñëwoon na ci kaw suuf ka toppoon mooy jariñu ku toppul moom du jariñu fii ah gars yi awaynahum kama awayna ñoom dañoo sànq ñoo leen sànq waaye ñoom dañoo sànq comme ñun niñ sànq waaye ñun nag dañuy dégager responsabilité mooy tafarraqna ilay ñun dañ leen ba set wécc barke yow yàlla maakaanu iyaana yaabudu ñii ñun lañ wax lañ doon jaamu jaamu ñu lu gëfi de gis nga doomu aadama bu ñu fi topp di ko jiñ cërëb yàlla wala ñu naan ko yaay tawat yaay itti liwaateeg yaay indi lii ak yaay indi lële àllaaxira da ngay taxaw wet di ba mu set wécc loolu la alquran di saxal tabarra'na ilayka mooy dañ dañ ba set ci yow wécc maakaanu iyaana yaabudu jaamuwuñ ñu de fële mu ni bal kaanu yaabudu jinna aksarahum bihi muminuun jinne yi lañ doon jaamu yi ëpp ñoom jinne yi lañ gëm waaye ñun suñ yónnewu ci ñun kay nañu àtte suñu bàkkaar yi bopp waaye nan ñu yéene yàlla ak yéene nangam ñun ñoo gën a xam ne duñ ay yàlla gis nga ne fii la ñuy mujjee ñi nga xam ne ñu ne suraka lillah di leen jëndale ak yàlla subhanahu wa taala allah ngeen ñoom mbooloo mooma yëpp dañuy dañ set wécc ci liñ leen doon jiiñ tafarraqna ilayka mooy dañ nañ ba set wécc ci liñ ñu ji yow yàlla waaye foofu moom wala taxiina manaas taxiina manaas mooy bay wees na mbuus wala der wees na mbuus boobu der wees na mbuus foofa boo fa réccoo réccu gu la jëriñ xam nga bokk na ci li gën a métti àllaaxira bokk na ci gën a métti àllaaxira mooy réccu àllaaxira ndax di nga gis koo xam ni xaqiqatan dafa réccu dëgg dëgg dafa réccu réccu na lool lool fii ci àddina da ngay gis mag moo xam dana réccu réccu réccu goo xam ne wér na ni bu démb doon tay du demee nii waaye démb moom nit mënta muus ak a mucc ba mu nekk tey gis nga doomu aadama dana dem ba àllaaxira moo tax waajal gi ak tiit gi lu am solo la ko kenn ku ci nekk ci ñun day war nga am ay saaat yoo xam ni taxlu bi nafsik summa tuxaasibu nafsak summa tatafakkaru fi dalik wa fi dati illahi subhana summa tastaiddu li yawmi liqaika bi rabbil alamin kenn ku nekk ci ñun ak lu la nit ñi jay jay ñii naan yaa baax ak ñii naan yaa bari xam-xam ak ñii naan yaa bari alal ak yaa mën a joxe ak yow kay ñeenaal ak bëgg naa mel ni yow ak yooyu yëpp ay yëf yu soof soofaan la amul solo de gis nga yooyu amul benn solo li am solo mooy li yàlla wax gis nga nit ñi yin lay wax bul bul ko sax digg bul ko sax digg yin lay wax ci ay laax laax bu wallaay bu ko sax digg boo koy déglu di aw loolu tax ñaanu sunna ba ñëw allahuma la tuaxidni ma yaqulun waj'alni xayran mimma yadunnuuna waghfir li ma la ya'lamun bokk na ci sunna nit ñi buñ lay waxal ay wax yuñ rafet njort rek nga ñaan yàlla la tuaxidni ma yaqulun yàlla de yàlla boo ma jàppee nit ñi li ñuy wax ndax li ñuy wax ah moom dañoo xamul rek moo tax waaye buñ xamoon duñ wax lii moo tax benn waxkatu arab ne wallahi law alimu qabiha sarirati la abat salaama alayya man yalqaani benn borom xam-xam bu mag mu ne nit ñaa ngi may tàgg rek waaye law alimu suñu xamoon qabiha sarirati li ma bon la te nëbb ko la aba salaama alayya man yalqaani képp ku tase ak man da ngay tibb doomu nuyu Abdullah ibn Mas'ud mu ne yéen yéen li mu ngeen def lii ñu ne ko dañuy jàng si mu ne gis ngeen su fekkoon ne bàkkaar daa am xet di xeeñ mu ne kon da ngeen taf seen bàkkaar yi jug daw ndax sama bàkkaar yi dina leen xeeñal allah noonu la julli war a mel di oyofal boppam di tuutal boppam nu la seytaan yi wax ne yaa ko mel nag nekk lu dëgg meloon melu ma ni di la jay ngay jayeex gis nga ñaan ba wajaal ni xayran ma yadoon noonu yàlla na ma def ma gën liñ may wax waaye waxfir li maa laa yaalamun yàlla na ma jéggal luñ xamut ndax nit ñi am na luñ xamut gis nga am na nit ñi loo xam buñ ko xamoon ci yow rek nga soox léegi waaye yàlla nëbbal la ko moo tax Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu bari na lu mu daan wax baat yooyu gis nga àllaaxira nit dafay ñëw ba ak si yaakaaram tas peeru tas boo xam ni yàlla rek moo ko xam gis ngeen sunu borom bi wax ne wa badaalahum min allahi ma lam yakunu yaxtasibun ndaxte wa badaalahum sayiatu ma kasab am na ñoo xam ne ñu ñëw ba àllaaxira foofu dañ koy baaxle sunu borom ne wa badaalahum min allahi ma lam yakunu yaxtasibun ay mbir feeñ fa nag yoo xam ne mosuñu koo naanaale ndox ndaxte wa badaalahum dafa feeñ tey sayyi'aat ma kasabu yu ñaaw yañ doon nëbb te nit ñi gisuñu ko waaye yàlla kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar lépp suñu borom bind na ko subhanahu wa taala nit ki di wéet ak boppam nag nit ñi yiñ lay wax jël ko nga sànni ko fële ndax xam nga nit ñi luñ la xam-xam-xam bal insaanu ala nafsihi basira yaay diwan yaay nangam ak yaa biyeeg yaa bi laaj yooyu ñu lay wax yëpp boo futtee koo ko defee tubay du daw nga sàngu tëdd mu lëndëm këru si yow yàlla kese kenn néew fa xam nga la nga mën ak la nga mën moo tax léegi seytaan du la bàyyi nag nit ñi dala jay rek ngay jayeeku rek bu ko defee nga dem ba yegg foo war ta yegg moo tax gis ngeen Omar ibn Khattab daa toog ba mu yàgg gars yi ñoom kii naan amirul muminin kii naan jazakallahu xayran kii naan ku nekk wax la muy wax Omar ibn Khattab ne ba tegg seen ba jub dem ca teen ba root ko paanum ndox yenul ko boppam ñëw ba ca bëri ko ba sotti ko fa ñu ni ko waaw li ngay def nag mu ni sama bakkan bee commencé naa ma ah yow kay yow kay yàlla defal na cër kat lu yaay amirul muminin xool ponka yi ñii mat la bàyyi ñii di say maam ñoom ñëpp sukk ci sa kanam ndax yaay amirul muminin ma xam ne sama bakkan bi su ma ko bàyyee comme jëm baaxu ma ne ko xaaral tey ma yet la paanum ndox ndax nga toskare tey ci kanam nit ñi kon ñun niñ doon yoree seen bakkan tey ma war a baax tey ma taxan nag say ko yëpp amal def na ko lu tax ngir rek wan bakkan bi yar ko bala muy fuuy ak a yegg moo tax gis nañu sànq ñëpp bay jii seen bopp cëri yàlla yi wala ñu ngi koy jii ñëpp fii rek la tàmbalee seytaan di la jay di la jay ngay jayeex mu di la jay ngay jeex ba nga àgg sa njom ndoxtal gara fam fam fam mën a yem ak yow rek ci man ka matali seytaan it xaal insaan ak foofu falamma kafara qala inni bari'un minka te fen na kat nag mu ne inni axaafu allah rabbal alamin te day fen it nag moo tax suñu borom ni gars yi tabarra'na ilayka ma kaanu iyyana ya'budun jaamu ñu de jinne yi lañ doon jaam ak saytaane yi waaye jaamu wa qiila suñu borom ni ñu ne leen ud'u woo leen surakaakum seen ndend yi mooy ñi ngeen doon nendale yàlla surakaakum mooy seen gaay yi nga xamante ni daal ñoom ñoo taxam ngeen di bokkaale yàlla woo leen leen nañ ñëw mbooloo maa ngi fees tel ak ay nit xam ngeen ni mbokk yi foofu yow ma yajmaakum li yawmin jam ah bisab daje ba yajmau llahu al qul inna al awwalina wal axirina la majmuuna ila miqaati yawm bu ñu koy teew kenn du des foofa xam nga ni moom mbooloo musul daje ci barab ba mel ni boobu musul am ndax foofu ñëppay ñëw suñu borom ni woo leen fa daawahum ñu daa leen di woo fa lam yastajibu lahu duñ leen wuyu mukk parce que ñoom ñi ma wuñu wuyu ñoom seen bopp leen kal foofu waaye leen wax jërëjëf jullee jërëjëf jullee maa koy jàllale àjjana ñu ne ah yow ñaan kii ngay jàll na ma noonu jàllale naa ko gis nga ak kii moom ay bàkkaar moom bu soobee yàlla ñu mu fekkaale ci armée ñëpp sax moom sooywaay sooywaay sooywaay la leen tey xam nga yéen ñii ñu ko bii dégg addiw moom njëriñ muy def nangam yow jaamu yàlla sax njëriñ ko maa la gaa maa lay dugal àjjana yow sax dem sax daa wóorugul yow ba ngay wax keneen yow yow moom sax dugg àjjana daa wóorugul ndax kenn la duggam àjjana wóoru kurul ku ko yàlla wax ak ko yonente bi wax sallallahu alayhi wasallam xoolal ne yonente bi waxoon da ngeen dugg àjjana ku ci mel ni Abubakar Siddiq nee na moom bu fekkoonte dañoo àtte nit ñi ba ñëpp dugg àjjana balaa mbooloo mee jeex ñu ne am na ku doon dugg mu ne man fële laay taxaw defe ni man la Abubakar bu dugg ci xeet bi kuy dugg àjjana kan mooy dugg mu ne bu sunu borom nii am na ku dul dugg man damay teel sax yu fële te yaakaar ni man lay doon te xool li ko yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ah wallahi Abubakar kontaan loola yonent bi ba génne la ah ñaata yoon muy génne rangoon yonent bi kontaan loo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen nit dana kontaan ba jooy loolu day am Abubakar génne na ay rangoon ba tey ngir bëgg kontaan loo yonent bi kontaan loola yonent bi ba génne rangoon yonent bi kontaan loola sunu borom ba sunu borom ni ko wala sawfa yarda yàlla dana la fay ba nga yëg ni yàlla kontaan na ci ah illa ibtigaa wajhi rabbihi al aala li muy def lépp yàlla rek la ca nam wala sawfa yarda dinaa la fay ba sa xol bi seet boo dajeg na yéen yàlla bi ne amul kenn koo xam ne defal nga ma njëkk lu dul delloo naa la ko ba mu dese abubakar ndax abubakar mënu ma koo delloo moo tax ma bakkaat yàlla xolal xolal yi mën a xib ni mu rëyee dellu ci Buxaari ak Muslim dellu ci sunan yeeg maajim yeeg masaajid yi da ngay fekk ay buntu yoo xam borom xale kitaabu fadail sahaba baabu fadail muhajirun baabu fadail ansar wallahi da ngay toog benn saxaaba ñu dala ko waxal ba da nga naan kii moom su dafa war a sax toog bañ a jaamu yàlla boobu ndax moom am na lu muy duggee àjjana ba pare waaye loolu lépp déedéet ñoom kat dañoo gëmoon ni yàlla rek moo mën a yërëm nit mu tàbbal ko àjjana te loolu mooy li wér oto woo leen surakaakum seen yàlla yeeg seen këram yeeg seen njaatige yeeg noo ko mën tuddee seen kilifa yeeg ah koo xamante ni nee na liggéey di ko jox rek moom jarul ngay jaamu yàlla moo la garanti moo la dugal àjjana xam nga doomu aadama dafa war a noonu muus nag mu xam ni fii ci àddina ku la bi mënta lijjanti wax dëgg yàlla ku la bi la mën a lijjanti ndax léeg-léeg kat waa ji dana dugg kaso waaw nga ne am eh bàyyi leen ko sab taalibe ñu bàyyi ko waaye la nga ne eh bàyyi leen ko ñu ne kii mënuñu koo bàyyi fii jaajëf na laa wax de fii jaajëf na léeg-léeg waa ji def ak ak njom de ak loolu loolu tóoti doona ñu dugal ko nga ne bàyyi ko ñu ne déedéet kii duñ ko bàyyi ah léeg-léeg waa ji accident ba tànk bi ni tëllit damm ñu xool xool gis ni mënuñu koo defar ñu ni ko tëllit jekkali ñu yóbbu ko président mënoo ci lu dul dem seeti ko ndokkeel ko yërëmtalu ko dem ñibbiwaat sa kër doo di waa tax fële déedéet gis nga waa ji këram gii tax mënu ci lenn lu dul moom bu dee ku nar a baax la mu jox la nga tabax daa tabax sa kër gi wa illa mbokki taalibe ak ndongo yi dajale jox la nga tabax ko waaye mënu ko ba indiwaat na tax kon déedéet yooyu doomu aadama yi ci misaali àddina yi buñ ko xoolee rek war nañ xam ni kon yi fii du fële yi yi fii bokkut ak yene fële suñu borom ni wala awla adaaba gis nañ mbugal ma gaa yi ñëw nañ nag ba ak ci ca jëm suñu borom ma ñi nga xam ne yàlla dafa def na lu ñoo taxe yàlla na suñu borom musal na ci ñu seen mbugal ma sawaat daa ngay bérex bérex yi wara awla adaab ñu seen mbugal ma wa ayqatu annahum waaqiuuna fi l adaab tey da leen di wéndi fa la ñuy duggi ndeysaan law annahum suñu borom ni cay ñoom bu ñu nekkoon kaanu yahtadun bu ñu nekkoon di gindeeku cay bu ñu gindeekoon fii ñu dugg tey duñ fa dugg bu ñu gindeeku woon xalaat jëfandikoo seenam xel topp seen borom alkane jii leen dal tey duñ ko dal bu ko defee ñoom suñu borom la leen wax waaye ñoom ñu ngi ngéejo law annahum ñoom kaanu yahtadun ñoom ña ngay defee ngéejo naan cay su ma yëgoon ma def lii su ma yëgoon ma def lii gis nga riccu gi gën a metti ci àllaaxira mooy fii waaye riccu gi gën a metti ci àddina mooy sukuraat gis nga aji jarat ji tëdd toll ci xër-xër ruugi war kooku boo ko yëgee boo ko yëgut mi ngi riccu riccu boo xam ni wallaahu bihi alim yàlla rek ko xam lu ma teree julli julli yu bari lu ma teree génn ci sama alal lu ma teree nangam lu ma teree daan def lii lu lu muy xalaat ni bu ko ma daan def mu baax rek tey mu ngi ñëw ci xelam bëgg koo def waaye est-ce que mën naa nekk wala te xiina manaas mënatu la nekk te doomu aadama day daw li wala fi wax daw ca ba ngay ami tànk loolu moo gën a wóor daw ca ba ngay ami tànk tey nag li tax daw ca ba ngay ami tànk neex sax yéen yàlla bi nee na booy def li la war ak li nga man ci jamono ba ngay wér boo xëyee feebar suñu borom day def malaaka yi ah waaw sama jaam bi tey lu mu def ñu ne ah moom ko déggut lam daan def suñu borom ñu lu taw ñu ne ko dafa jagade mu ne bindal leen ko lu mel ni lam daan def ba mu jagadee ko loolu xalit la bu wér kon ki nga xam day góorgóorlu def effort lu mu man saa bu tawatee na yëg ni moom liñ ko doon pointé par jour moom lañ koy pointé ba tey loolu loolu loolu xéewal suñu borom rëy na lool ci xéewal suñu borom suñu borom ne wa yawma yunaadihim ba léegi bisab woote ba ulaika yunaadawna min makaanin baid wootante ku mucc lay doon bàyyi di woo doom ngir bëgg mu xittali ko ci aw tiyaaba doom di woo bàyyi ngir bëgg mu xittali ko ci tiyaaba jëkkër di woo jabar jabar samp xelam comme ni ko alquran waxee yowma yafrahu lmaru min axi wa ummihi wa abi saxbatin wa ni nga gis waa joo xam ne yawatul mujrimu law yartadi min adabi yawmi idin bi bani wa saxibati wa axi wa fasilati lati tuwi wa man fi l ard jamian suma yunji di gis koo xam ne yow borom subhana taala na jël sama doom ji nga lakk ko te man ma mucc ci sawara sunu borom mu ñu déet wa sa doom def ma dara kon ndax mooy tooñ mu ne jëlal sama jabar ji nga lakk ko ba mën a mucc sunu borom ne ko déedéet kon ma tooñ ndax defuma dara mu ne ko woon fil ard xam nga bu yàlla jëlu sa jabar jëlu sa doom te ñu ngi gën laa jege woon fil ard waa force da ngay moom ba yàq yàlla leen jël lakk leen mooy doomu aad loolu li nga ci digg mooy doomu aadama bu jaaxlee waxu dox bu ne mën na ko wax wa man fil ardi jamian summa yunji sunu borom ne ñu weet law anna lahum ma fil ardi jamian wa mislahu maahu liyaftadu min adab yawm alqiyama ma tuqbila minhu bu ñu amoon àddina ak li ci biiram ñu fulal leen ko mu ànd ak moom ñu bëgg koo jox yàlla garab wala impo wala ger ko ko ngir yàlla musal leen ci mbugal mi suñu borom ni soxlawut loolu loolu tax ñu mucc ci waaye mbugal metti mi ngi leen di xaar yàlla suñu borom boo leen ci musal suñu borom ni wa yawma yunaadihim bis bi ñuy wootante fa yaqulu ñu leen di wax naan maada ajabtumul mursalin yéen ndax wuyu woon ngeen yonent yi lan ngeen wuyu woon wuyoo woon yonent yi yàlla yónni woon ndax wuyu woon nga yonent yi maada ajabtumul mursalin duñ wax mukk maada ajabtum suyoo déedéet nu ngeen demoon ak sëriñ si nu ngeen wuyu woon sëriñ si déedéet sëriñ si ñoom nañ jàngale te fexee nekk nit yàlla bu ndongoy amee lu ñu leen jox ñu jox leen ko ñoom it bu ñu amee lu ñu jox ndongo yi jox leen ko ndax mbir mi joxante la du benn loxo kese mooy joxe te yam ca palaasu sëriñ bàyyi yonent bi mu yam ca palaasu yonent bi bu ko defee yàlla nekk ca palaas moom moom lii de mooy maanute i'taa'u kulli di xaqin xaq suñu maanaam wax mukk lu ngeen wuyu woon sëriñ seeg xalifa yeeg yu kenn xamul déedéet benn bi la ci alquran maada ajabtumul mursalin yonente yi la yàlla yónni gis nga yàlla alamu xaytu yajalu risalata xool na kaw suuf sippli leen xam leen ñoom ñëpp ah addahum adda fa alimahum wa wa fa arifahum fa arafahum wa alimahum wa addahum addan fa axsaahum wa kulluhum abidu xam na leen xàmmee leen lim leen moom leen man leen ba pare te kenn ku ci nekk rek ab jaam ngay doon ci moom yàlla subhanahu wa taala nan lay laaj mooy maza ajabtumul mursalin moo tax boo duggee bàmmeel kenn du la laaj kenn ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man la ko kuy sa borom ngay nakk nakkal foofu nag yàlla dafa def déggoon arab taxut tontu ñaw xel tax te tontu waaye mbir mi tiyaaba énergie tiyaaba mooy tontu parce que réalité yi ñu am ci suuf ba force laa leen di am jàpp ko xel dënn wax ko ay kàcc mu génne ko loolu amul allah ko parce que réalité yi am fii fii la yem boo sukuraatee nga dee rek mu jeex àggul barsax day àgg àllaaxira su ko defee sunu borom danañ dañ malaaka yi dañ koy laaj ni ko lan nga xam ci waa ji muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su dee ku baaxoon la ah day dëgër tontu day wax ni man kat xamoon naa ne kii mooy Muhammad ndawal sunu borom gëm naa ko topp naa ko déggal naa ko jaar naa ko ba jaaroon gis nga buñ ko laajee ba laaj yi yegg malaaka yi dañuy wëlbatiku laajaat ko beneen yoon laaj bu bar jaxase ko xam nga doomu aadama bu nekkee ci tiis boo ko gëttanee mbaa nga jaxase ko rek boo moytul mu après wax lu mu war ta wax moo tax bu ngeen fàttalikoo ci yusabbitu llahu alladina amanu xawi sabit biñ koy tafsir waxoon naa leen nii ah ñëw nañ foofu benn atar ñu ne yàlla malaaka yi dañuy gëtal nit ki gëtal ko su ko defee ca biir gëtal googu nag ci la yàlla dëgëral ki gëm yàlla yusabbitu llahu alladina amanu bil xaya bil qawli sabit bil xayaati dunia fii ci àddina fii ci àddina parce que mënoo jiital ab julit ku gëm yàlla dëgg yàlla moo koy déey ay tonton waaye wa bil axira foofu mi ngi tekk bu ñu duggee biir bàmmeel wa yudillu llahu zalimina wa yafalu llahu ma yasha sunu borom mu ni wa yawma yunaadihim bis bañ leen di woo naa leen maada ajabtum almursalin lu ngeen wuy woon yonent yi wala nan ngeen wuyoo woon yonent yi fa amiyat mu daal di muuru naaf taay na réer na alayhim al ambaau xabaar yiñ mën a informé ba mën a tontu loolu mooy jamono jooju nit ki bi ñu koy laaj lam xamoon lépp ma koy réer lam xamoon lépp moo koy réer ah yawma idin bisu keroog foofu laa yatasaalu même sa morom sax doo ko mën a laaj pour mu dikkale li nga mën a tontu am na ci borom xam-xam ñu ne waxum kay foofu laa yatasaalu ne kenn du la laaj sax wan askan nga bokk ak foo nangam ak a ñu wax dëgg fa idaa nutiqa fi suuri gisoon ngeen ko falaa ansaaba baynakum yawma idin wala yatasaaluun soo demee ci saxiixu muslim yéen ci yàlla bi nee na man badaa bihi amaluhu lam yulxaq bihi nasabu ku sàggan ba say jëf tax laa tardé saw askan lu mu baax baax du la tax a dabe ak a wax dëgg damaa bokk ci askan sàngam si bu dee biir Sénégal nga xam ne ay sant la nga xam ne sant moom daanaka c'est comme rien du dara du tous aw sant du dara aw tur du dara lay am solo mooy jëmm ji sax du dara la am solo mooy jëf jëf fahum laa yatasaaluun kenn du la laaj koo bokk kuy sa maam nuy saw sant réalité yi sant fii la yem te waxuma ne sax fii la yem sax ci yenn réew yi sax la yem am na réew yoo xam ne sant sax dafa amul sax mu jeex xam nga loo xam ne bii jaadina am na ñu ko xamul sax gis nga yéen xeet naar yi suñu mbokk naar yi am na ci ñoo xam ne léeg-léeg boo waxee sant dañ lay reetaan parce que xamuñu loolu xamuñu loolu ñoom xamuñu ay sant am na ñoo xam boo waxee sant dañ lay reetaan ñoom li ñu xam mooy tur diw doomu diw diw doomu diw moo tax ba doon gànnaar gii ñu gën a jege diw wul diw ah ah Mouhamed wul wul de Hassan mooy doomu diw ñoom loolu leen xam diw doomu diw loolu moo doon am waaye ay sant ay amul chance c'est que fii ci àddina am na ñu ko xamul àllaaxira taxul di wax te réalité àddina yi bokk ci àllaaxira yi fagum laa yatasaaluun amul laajante ba mën a xam loo tontu waaye amul laajante tamit ci wan askan nga bokk ak kaay dugg fii ak déet yooyu amul. amul benn drapeau bu ñuy sampal kenn nag mu di ko woy taalibe déedéet loolu amul alaxira sunu borom mooy fa amiyat alayhim al anbaau yawma idin fahum la yatasaaluun day saa lépp da lay réer loo mokkaloon da nga koy fàtt loo xamoon da lay réer doo mën a tont lu dul yàlla moo la dëgëral te bu lay dëgëral day fekk nga defoon ak baax sunu borom ne fahum la yatasaaluun amul laajante waxoon naa leen ci bind yii weesu àllaaxira am na barab yoo xam sunu borom dafa saxal ni waxante am na fa waaye am barab yoo xam ne ni wax amu fa kon fépp fuñ dàq ne wax amu fa rek mooy ba nga xamante ni barab ya nga xam ni waxante jeex na sunu borom noppi loole moo tax Kaab al Ahbar di wax ni même waa safara sunu borom saa bu leen ixtaqu fiiha wala tukallimuun baat dootul jibati mu ne da ngay dégg rek xëxat ay xëxat ak yuux ay xëxat ak yuux waaye benn baat doo ko déggati ndax borom bi dana ixtaqu fiiha nuur leen ci biir safara si wala tukallimuun bu kenn waxati ak ñoom maanaam ñaan njekki geeg yàlla subhanahu wa taala ñii ñooñu ñooñu gin ñooñu sànkoon ak joxal ñee mbugal mi wa wa naa def yaa may nekul yàq joxale naa rabbuka yooyu yëpp ay wax la yoo xam wax ju bare bare bare ak yu ko ko coowaloon yàlla moo ñu génne ñu def lii nangam nangam suñu borom mu ne yooyu noppi leen bu kenn waxati su boobaa wax dootul amati ilal adab doo dégg lu dul rek shahiir ak zafir ay onk ki nooyee ki xeex te ndiku rek kese ngay dégg borom bi subhanahu wa taala mu ne fa amma man taaba fa amma man waaye képp koo xam taaba dafa tuub bi tuub di jot tey teel wa aamana mu gëm ca jamono yi gëm bañ a bàyyi ba gëm di wees mu doog a gëm wa amila saalihan muy jëf-jëf ju baax gis ngeen ñett yi dafa bokk sax ci surutu taw tawba bu ngeen fàttaliku ca surutu nuur bi ñuy tafsir gaa yi nga xam dañuy tuumaal seen mbokki julit même bu ñu tuubee fii ñett yi amul seen tuub du valable illa alladina taabu wa aslahu wa bayyanu kay da ngay tuub ba noppi nangu ni yaa tuumoon te fas yéene woo caa dellu fa nga jaaroon yàq nga fa jële daa defar loolu mooy wax amila saalih ñett charte yi même bu dayoo kooku ilal abad kenn du kenn du ko jëlati seede defe naa leeraloon naa loolu kon fa am naa man taaba même jaalokat yi ca suratul furqaan gis ngeen leen ki tuub ke yàlla lay remplacé ay yëf jëfam la man taaba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu llahu sayiatihim xasanaat da ngay tuub gëm ni la nga doon def baaxul ni nga nekk tey baax te fas yéene retraité yu bari waaw kay sunu borom ni ki tuub ak tawbatun nasuux mooy tuub gu dëgg tuub gu set tuub goo xam ne bu démb doon tey ñu tàbbal la ca sawara sa la ko gënal nar koo defaat nañ la jagat jagate lakk la fii ci àddina la ko gënal waccu lekkaat moo la gënal delluwaat la nga defoon wa aamana mu gëm gëm gi day boole ñaari njub gëm ne lim nekk nii bi muy tuub mooy li baax waaye la ma nekkoon lu bon la wa amila saalihan muy jëf-jëf yu baax jëf yu baax mooy da ngay fexe ba fa nga jaaroon bañ jéppi la nga jaaraat bañ kontaan fa ci fa ata amaan na te amaan nay sunu borom mooy dina am an yakuna mu bokk min al muflixina ci ñi nga xamante ni ñooy ñii texe yàlla sunu borom boole ñu ci ñi texe càllaa ko dem sunu borom ni wa rabbuka sa borom yàlla nag buur bu màgg bi te bari sañ-sañ te ami sañ-sañ te moom yaxluqu mooy tàkk di bind maa yachaau lu ko soob wa yaxtaaru mu daal di tànn it maa kaana lahumul xiyara la nga xamante ni ngëneel da caa nekk ak mbaax da nekk maanaam daal sunu borom mooy ki moom ah waaye ba moomee ba noppi nag mooy seet la ko soob ca la moom mu tànn foofu nag daanaka mi ngi mel ni li an laa yaalama ahlul kitaba la yaqdiruna ala shay'in min fadlillah wa anna al fadla bi yadillah yuti man yasha loolu day mel ni zalika fadlullah yutihi man yasha wallahu dul fadli al azim loolu day mel ni wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi fama alladina fuddilu bi raddi rizqihim ah loolu day mel ni yuti al xikmata man yasha wa yuti al xikmata faqad utiya xayran kathira aay yooyu li muy wan loolu lépp mooy yàlla ci biir jaam yi day bind ba noppi tànn am na ñoo xam ne suñu borom da leen di tànn jox leen alal ba ñu giijal ñee suñu borom jox leen xam-xam ba ñu kii jël ñee suñu borom jox leen i pexe ñii suñu borom xaññeen ba ñu dalaat moo tax wér na ci xadis yéen ci yàlla bi neen inna min ibadillahi man la yuslihuhu illa alfaqr fa afqarahu llah wa inna min ibadillahi man la yuslihuhu illa alghina fa aghnaahu llah aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam xadis bi wér na yéen ci yàlla mu ne am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ne yàlla da leen a xool ba xam ni ñii dara du leen jagal lu dul mu ñàkkal leen ba keroog ñuy dee moo tax ñooñu duñ ma sax ba keroog ñuy dee dañuy ñàkk ndax yàlla dafa xam ne loolu mu baax ci ñoom bu ñuy am rek yàlla am na ñoo xam ne suñu borom da leen a xool xam ni ñii am rek a gën ci ñoom suñu borom amal leen ndax bu ñuy ñàkk di am te suñu borom bëggalu leen alakaani moo tax gis nga yàlla ni muy séddale lu kéemtaan bi la ah walaw basata allahu rizqa li ibadi mu ne la baraw fi lard dañuy bew walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha ah gis nga ko yabsutu rizqa liman yasha wërsëg wërsëg la bu ñu ko waxee duñ fa mooy koom-koom alal kese wërsëg gën naa yaatu alal alal da caa gën a siiw rek waaye yàlla soo dara mu ni mooy séddale wërsëg di ko séddalee noonu waaye suñu borom day képp koo xamante ni jox na ko na xam ni loola nattu la waaye kum xañit mu xam ni loolu tamit am nattu la suñu borom bi subhanallahi tudd na sell ak suñu borom ak a sell subhanahu tudd naag sellal subhanallahi tudd naa sell ak yàlla wa taala ak a kawe amma yushrikuuna ak a sori te kawe liñ koy dendaleel ak melokaan yu siguti sikk yi nga xam ni ñu ngi koy dendaleel suñu borom suñu borom ku xereñ la ni mu ko defee noonu rekk la xool na jaar ñi ba xam leen kii mu dëkkal ko ca kaw ga kii mu dëkkal ko ca taaxale kii mu jox ko ba mu ni giijal lool kee mu xaj ko kii mu gàttal ko kee mu njoolal ah kii mu may ko xam-xam kee mu may ko alal kii xamut dara kee amut dara kii mënut dara kii sañut dara yoon la ko suñu borom séddale nga ne nga bokk ci maanute ak gëm yàlla mooy an tarda bima qasama allahu lak buntu boobu seytaan dañ ci mën ñun ñëpp leneen da ngay gis kuy ngéejoo su ma meloon ni diw ah te loolu gis ngeen ci jeexintalu saar ci xisab xaaroon da ciy feeñ ni sunna da koy tere yéen yàlla fa ne laa xasada illa fitnatayn ñeetaa ngi amul lu dul ci ñaari mbir waa joo xam ni yàlla da koo dénk alal ju bare bare bare mu xam lan mooy alal ah te kat xam nga ñi am alal ñi ci ëpp na xamul luy alal la am na koo xam ne dafa am alal ba pare xam luy alal xam lu alal di jariñ moo leen bunt yi mën a tàmbale àjjana yëpp fëgg na ko dugal fa xaalisam kooku de mat naa ñee ñaan yàlla mel ni moom waaye gars yi sama gars yi léeg-léeg dañuy ñaan yàlla mel ni kooku waaye bu ñu xasee ni mel rek changé doxee nag dikko ak melokaan beneen bi mooy waajoo xam ne yàlla da koo dénk alquran wala xam-xam mu man ko lool jekk ko lool waaye te di ko jëfe maanaam alquran ci boppam lubb bi dëgg dëgg dëgg nekkul comme ni ko nit ñi foogee te jubbaat bi neex nit ñi ñi ñi ñi ñi daanu di suuf yées yi mbir mi du foofu yonent yàlla dañ koo laaj kan moo gën a neex baat ci jaami yàlla yi mu ne koo xam ne buy jàng ngay yëg ak ragal yàlla ci njàng koo ko gën a neex baat xam nga ñun nag bi ñu nette du foofu ñun moom faw lii di di teree ni mel nii dëgg la alxuraan moo di sunna moo digal loolu moo dig la ñu neexal baat waaye nag fan ko fan ko fan ko teg éegu fa solo ba dëgg dëgg dëgg du du du foofu am na waajoo xam ne dafa xuur baata xuur baata xuur baat allahu akbar waaye boo ko déggee ci rajo bi muy jàng wala nga dégg fu muy da ngay xam ne dëgg dëgg dëgg kii li muy wax am na feneen fu mu ko tëbbee fu dul jiw laam ñu kese Cheikh Abdoul Hamid doon wax bépp wax boo xam ne ci xol la jógee même bu jaaree ci nopp ca xol ba lay dem direct te kenn mënu ci dara mu ne loolu sax daangoro bi kenn mënu saafara waaye wax joo xam mi ngi jóge ci sa làmmiñ mu ne bu ñëwee ka lay déglu fii lay yem rek su paree dem mu ni kenn mënu ci dara jàngoro la joomul saafara wax na dëgg lu wér na wax sunu borom ni huwa allahu ah wa rabbuka sa borom yàlla yaalamu aji xam la wala boog subhanahu laahi tub naa sell ak yàlla wa taala aka kawe amma yushrikuna aka sar liñ koy dendale mu ni wa rabbuka sa borom yàlla yaalamu aji xam la maa tukinnu suduruhum li nga xamul dund yi ëm ëmb wa maa yu'linuuna ak li nga xam ne loolu la ñuy teegal gis nga nit ñi bu ñuy nëbb ka nax nañ nax nit ñeeg nëbb leen waaye mënoo nëbb yàlla wa asirru qawlakum aw ijharu bi moom yemul ci dégg ak gis waaye alimun bi daati sudur lii nox nox ci dënd yi nga xam ne kenn xamul ko ndax waxoo suñu borom xam na kon xam na maa tukinnu suduruhum li ci dënd yi wa maa yu'linuuna ñuy feeñal kon naa fekk dootu ko jarati parce que jarul ni faa ndax comme borom bi xam na lépp li mu xam moom suñu borom ca lay àtte waaye du nit ñi wax ak li ngay wax yow suñu borom ni huwa allahu wa huwa moom buur bu màgg boobu wa huwa moom suñu borom allahu mooy yàlla muy ismul alam laa ilaha illa hu amul lenn lu ñu war a jaamu wala mu yeyoo lenn ci jëri jaamu yi kurub suñu bopp lahu lhamdu moo yeyoo cant fil ula ca jaagi benn nga wal axira ba ca mujjantal ga ndax lu fi am mooma moom rek moo yeyoo cant moom rek lañ war a sant lekk mu rees mooma nelaw yew mooma feebar wér mooma jaaxle génn ca mooma yépp sunu borom la subhanahu wa taala sunu borom yi lahu lhamdu fil ula wal axira ci njaal benn ci mujj gi yépp mooy ki wee ki yeyoo cant amul keneen kuñ ko war a jox ku dul sunu borom wala wal xukm moom mooy ki yeyoo àtte mooy buur bu mag bi mooy ahkamal ahkamul xaakimin sunu borom ni lahu lal xukm moom àtte moo ko yeyoo te moo gën a maandu àtte nag alaysa allah bi ahkamil xaakimin bala ahan kay mu ni wa ilayhi turjaun te ñun jaam yépp bu ñu faatoo danañ yenkam yenkam yi ñu it ñu sunu borom sunu borom àtte na ci sunuy jëf bu nu borom bi dee àtte sunuy jëf yal na yàlla àtte na ci yërmandeem jéggal na sunuy bàkkaar sunu borom nu yonent bi qul waxal gaa yi ñu déglu ñi ni ngir ñu xamaale kéemtaani sunu borom ak kàttanam ak màggaayam qul neen araaytum xanaa def leen ak taxaw seetlu ci ni in jaala allahu sunu borom defoon alaykum ci seen kaw wala sunu borom su leen defoon allay la guddi gi sarmadan muy bërëri rek ila yawm alqiyamati ba alaxira te ba cëg ñëwatul man ilaahu kan rek ngeen di jiim ak yàlla gayrullahi te du yàlla mi nekk yàlla kookee yàttii ku mu leen andil bi du yaatu ci ak leer bu wuuteeg lëndamaayu guddi gi question bu màgg ngi boo xam ni li li kéemtaan gi nag mooy ba ko yàlla waxee ba tey amagul réponse nag loolu moom seetlu naa ko ci moom question gi nii bu am solo bu ñor bu màgg ba ko yàlla waxee yonent bi ba tey nag amagul réponse parce que xam nga léeg-léeg am na yoo xam ne jërul réponse parce que gàcce mooy réponse bi ndax nit ñi dañuy xam ni lii mu wax lii borom wax ji wax mooy dëgg yàlla mi nga xam ni mooy indi guddi su jëloon guddi gi def ko sarmadan muy bërëre rek continuer ila yawmal xiyaama su àllaaxira guddi amatu bëccëg amatu man ilaahun gayrullahi kan ku dul yàlla ngeen koy jiiñ ak yàlla wala cër cër yàlla yi yàtti ku mu di leen andil bi doyaat ci ak leer ak ni ngeen soxlaa leer waxtu bëccëg ah xam ngeen ni bu dul woon ak bu dul woon ak guddi xam ngeen ni bayam bagdi museer mii ci làmp yi ñuy taal duñ ci fekk xam nga duñ ci fekk moom bëccëg gi moom daanaka moom jur taal làmp jur taal làmp ndax borom bi leeral na fépp jantam bi moom benn làmpam bi boo duggoon ba sa biir néeg ba sax mu fekk la suñu borom ni kan la indil bi ko yaa indi ci leer te leer gi ak am solo ak baax ci sa bët yi gis nga doomu aadama bu doon nekk ci lëndëm di nekk ci lëndëm bu yàggee bu génnee ba day ful day yàqu comme ni nga xam ne bu nekkoon ci lu leer naññi naññi bu yàggee ba di yàqu laaj leen ko liir kan yeeg ñi jàpp jàpp dëkk ci ordinateur yeeg ñoom seen maanaam yàlla ni mu ko mooñee da ngay mos fii tuuti mos fee tuuti moo tax borom xam-xam yi di tere jàng ci lëndëm ak jàng ci jant fépp foo xam ne lumière ba leerul dañuy tere ko ba jàng parce que day yàq ay bët waaye fépp foo xam dafa naange lumière jant bi ni fa tay foofu dañuy tere ko fa jàng parce que day yàq bët suñu borom la xul waxal ba beneen bi mooy comme boobu amul ton ara ay waaw xanaa def leen taxaw seetlu in jaala allahu su fekkoon ni in jaala allahu sunu borom dafa def aleykum ci yéen ay kon sunu borom ni man ilahun gayrullahi yatiikum kan ci suñu borom mooy ki nga xam ni moo leen di indil bi yaa it cig leer afala tasmauna xanaa du ngeen dégg xanaa du ngeen def ak taxaw seetlu amul dégg mu ne xul waxal ba léegi ara aytum xanaa defuñu taxaw seetlu ni wala boog xanaa gisu leen ni in jaala allahu sunu borom defoon aleykum ci yéen annahaara bëccëg bi comme gi ñu nekk nii sarmadan muy bërëru rek continue ila yawmi alqiyamati bi sab àllaaxira man ilaahum kan ku nuy jiiñ ci cëri yàlla yi kan rek ku mën a doon koo xam ni gayrullahi du yàlla mi ngeen xam muy borom kàttan bi yatiikum moo leen di indil bi laylin ci guddi goo xam ne taskunuuna fiihi ci ngeen di mën a amul dal afala tubsiruuna xanaa du ngeen gis xanaa du ngeen seetlu seetlu gis guddi gi sunu borom daf ko jox xetan ah borom bi daal taskunu fii borom bi dafa def guddi ngir ñu mën a amul dal parce que guddi barabu noppal la moo tax wa jaalna nahaara maasa wa jaalna nawmakum subaata fee mu ne wa jaalna nahaara maasa bu nekk borom bi daa am lu mu ca programme waaye gis nga boo seetloo aaya ji comme ni ma ko doon faral di waxee borom bi day wax ni in jaala allahu alaykum allayla mu jeexalee afala tasmaun in jaala allahu alaykum annahaara mu jeexal afala tubsirun gis nga ñaar yi seetlu gu am solo la mooy afala tasmaun doomu aadama waxtu guddi lëndëm gee ñëw di përëree bët amatut sens bu làmp tar ko kon afala tasmauna foofu moom déglu rek moo fay jëriñ waaye du gis parce que force bi daan nekk ci jaww ji di may bët doole pour mu gis amatut waaye bu nekkee ci lëndëm gi day balantoo da làmbatu kon foofu afala tasmauna da ngay ne kii kan la kii kan la parce que da nga kaa gis da ngaa dégg da ngaa dégg ay ay ay bir bi am loo seen mu lëndëm lëndëm nga yaa ngi ko gis kon fa gisoo ko ndax da ngay toog nañ kii kan la mooy gisatoo ko kon afala tasmauna mooy valable nopp dégg parce que bët boobu force bi jeex na fële suñu borom ne afala tubsirun xanaa du ngeen gis dëgg la bëccëg bi nopp dana utiliser bët utiliser waaye bët nag fañ ko soxlaa dëgg-dëgg nag fañ ko xañee ci guddi ga fii lañ ko soxlaa ci bëccëg bi afala tubsirun nga xam ne ni ku jug kat di wuti maasal moom xool fa ngay jaar am na solo lool ba nga déglu la ngay romb ndax boo xoolul fa ngay jaar doo xam koo jëm kon ñaar yi borom bi soo defal bi ci taxaw seetlu kenn ku ci nekk man cee xalaat waaye kenn ku ci nekk man cee bàkkaat yàlla kañ ko ci gën ko cee delloo njukkal fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin sunu borom bi nga xamante ni bokk na ci yërmande sunu borom bi yaatu ji ndeysaan nga xam ni lépp bu yërmande la bari yërmande ci ñun lool doomu aadama bu toogee bay laaj fan la yërmande yàlla yi feeñ ci moom kooka kooku ñàkk na cër dëgg ndax damaa xam ni ngelaw li ngelawam lii ngay noy te fayoo facture énergie bi ngay xoole te fayoo facture te bu say bët yàqoo kala joxee lu nekk dalay fayloo ah nopp bi ngay déggee te fayoo dara te bu nopp bi yàqoo da ngay fay pour ñu am luñ la te defaral làmmiñ yi kadalika bët yi kadalika limal loolu lim day sax suñu borom nag bokk na ci kéemtaan yi yi gën a nekk nécessité da koo yombal ba mu yomb gis nga gis nga li gën a nekk nécessité mooy lekk ak naan te lekk ak naan naan a gën a nekk nécessité lekk moo tax na même lekk ak naan li ñuy yomb yomb ñoom ñaar naan gën a yombaat lekk parce que naan a gën a nekk nécessité lekk ndax doomu aadama li mën a toog muñ ko lekk muñ koo toog muñ ko naan moo tax yi nekk nécessité yépp suñu borom da koo yombal léegi nag ñun nag ñoo bëgg portable nekk nécessité valise bu nga da nekk nécessité lal duubu lii nekk nécessité lu nekkul nécessité ñu bëgg moo tax ñuy sonn waaye yi nekk nécessité nga xam ne yii mënta ñàkk ci ni ku amul sonn wala nga torox suñu waram da koy yombal loo yombal ba mu yomb énergie ngelaw li ñuy noyyi nécessité la ndox mi ka daali ko lekk yépp suñu waram daal di koy yombal subhanahu wa taala lekk gi sax yomb na kat nag xanaa nit kay moo fi nekk jàpp lu muy taamoo nii laa ko bëggee fee laa ko bëggee waaye bu fekkoon ni amoo benn bëgg-bëgg l'essentiel lekk lu muy jariñ nga suur pour jëmm ji mën a taxaw jaamu yàlla dama ne te yombut jafewut waaye ki nag day am lu muy taamu nii laa ko bëggee ngeen ak su war a bàyyi la sa bopp mu doog a commencé jafe wala loo xam ne bokk na ci yërmandeem yu yaatu gi suñu sunu borom jaala lakumul layla daf lay defal guddi gi wan nahaar ak bëccëg gi li taskunu fiihi ngir ngeen mën cee amut dal gis nga fii dal gi nag sunu borom da koo boolee bëccëg gi guddi gi aaya ji maam seetlu bu am solo bu ma ci def mooy gis nga guddi gi la nga xamee woon dall bi bëccëg gi wut waaye sunu borom bi daa boole dall gi boole ko bëccëg gi guddi gi xam nga loolu lan lañ ci mën a génne wallahu aalam mooy ndekete doomu aadama bu defee la ko war ca bëccëg ba doomu aadama bu defee la ko war ca bëccëg ba loolu ak dal la koy jural ci bëccëg bi waaye dalaat la koy jural ci guddi gi bal mooy tax maam dal ci bëccëg bi am da ko ci guddi gi gis nga doomu aadama bu defut li ko war ci wàllu wutum wërsëg la la mu war a lekk ak la mu war a nangam dal gi du ko am ci bëccëg bi parce que daa war a am lu mu lekk da lekk ko waaye du ko am ci guddi gi parce que xam ngeen ni ku jaaxle boo tëddee doo amul dal kon doomu aadama su la war a bàyyi yombal ko bëccëg bi mu def ci ay liggéey ak wutum koom la mu war a am ba xelam dal ci bëccëg mu am dal su ko defee mu gën a dal nag bu guddee wallahu aalam sunu borom mu ni wali tamataxu min fadlih ngir ngeen mën di wut ci wërsëgu sunu borom bi ci àddina bi fa ida qudiyat as-salat mu ni fantasiru fi al-ardi wabtagu min fadlillah wuti leen dem leen wuti moo tax as-saayi fi talabi rizq su fekkee nit ki da koy def ci jubluwaay bi mooy lu mu lu mu sàngee sutura lu mu lu mu bañee moyee yàlla loolu da ci am yiw insha allah bal sax day nekk fi sabilillah ci waxu yonent bi saa sallam waaye sax dafa min fadli ngir ngeen mën a sàkku ci koomam sunu borom bi wala annakum tashkuruna ngir ngeen mën a sant seen borom subhanahu wa taala sunu borom ni wa yawma bi ko kenn ba léegi àllaaxira ji jeexagul de mu ne yunaadihim def na leen woo ayna surak fa yaqulu ñu wax leen ne leen ayna surakaai alladina ana ñi ngeen ma doon dendandee léegi alladina gaa yi nga xam ne kuntum tasumuuna ñoom ngeen doon njoox di yaakaar ne ñoom ñooy morom yi sunu borom te sunu borom du morom waaye borom la sunu borom ni wa nazaanaa ñu daal di xitti wa nazaanaa ñu daal di xitti daal di coppati génne simbi min kulli ummatin ci xeet bu ne shahidan ku nekk seede fa qul naa ñu leen haatu burhaanakum andi leen seeni lay ci lii ngeen doon def yéen ñi def jëf yoo pare ci yéen dañuy jël seede ni leen kaay leen ñu ñëw mu ne andi leen seeni lay haatu burhaanakum andi leen seeni lay ci ni kii mooy yàlla kii mooy taw kii mooy joxe wërsëg kii mooy xitili kii mooy nangam sunu borom bu ne leen haatu burhaanakum fa taxayyaru ndeysaan ñu gërëm jaaxle duñu am ay tont fa alimu ñu daal di xam ni nag anna al xaq dëgg gi nag lillahi yàlla moo ko moom dëgg gaa nga fa sunu borom dëgg gaa nga ci yàlla rek moom mooy yàlla waaye amul benn amul morom wa dalla tànku na réer na anhum fa ñoom maa kaanu yaftaruuna lan doon fent ak kàcc ak di ko jiiñ suñu borom subhanahu wa taala di ko di ko jiiñ seen morom yooya fekk amut borom bi subhanahu wa taala wàcc na loola mu indi nu beneen qissa nag boo xam ne bu alaaka la am bu rëy ak yonent yàlla Muusa alayhi salaam muy qissatu Qaaruun Qaaruun alayhi laanatullah doomu bàjjenu wala doomu baayu Muusa la woon ci li gën a dëgër ci waxu borom xam-xam yi ahlu siyar Qaaruun kon doomu bàyyi la woon ci Moussa alayhi salaam loolu mu ar yëpp ni ku mel ni al-Hafiz ibn Kathir wax naan ko Qaaruun waaye la joo xam ne borom bi subhanahu wa taala daf ñoo nettali ab nettaleen ngir mu nekk ab yóbbal akub yóbbante ci képp koo xam ne yàlla dénk na ko alal wala dénk na ko koom wala mu nekk yóbbal wala yóbbante ngir képp ku am mbokk mu yàlla dénk alal wala mu dénk koom-koom ndax xam-xam ngeen ni xaarul kat mbokk yi ci ñi gënoon na bew ci kaw suuf la bokk doy na ca tegtal mooy mbokkum Firawna la woon ba sax am na ñuy wax ne secrétaire Firawna la woon ca fa nga xamante ni moom mooy jamono am na ñuy wax ne sax alalam ju bari jooju yëpp mi ngi ko jëlee woon ca jamono bi muy gouverneur Firawna dajale rek di lonk lonk yi dem rek baaxee yi bari lool mu daal di mel ni mel wallahu aalam yàlla am nit ñi rek mu arrivé yi foofu léeg-léeg boo delloo ci kàddu yi séeréer dañuy wax ay wax yu bëree bëri ñii naan fekkee na Moussa fekkee wu ko daa tuumaalu Moussa tuumaalu ko yooyu yëpp ay wax la waaye suñu borom daal lim ñu ci wax doy na ci sëkk ndax qissa bi avant Firawna la wala après Firawna loolu alxuraan leeral ko amul tegtal ñu koy leeral ndax fekkante nag Moussa fekkante wu nag Moussa alquran leeral ba léegi ñu bari ko na dañuy jum jàpp ne xaar na maanaam moom Moussa la woon keroog keroog comme dee ko affaire ni mu demee Firawna loolu alquran leeral ba léegi Qaaruuna borom bi subhanahu wa taala bi mu koy alagak ni mu ko alagee jan jamono la woon alquran leeral ko ba léegi yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ni mat naa bàyyi xel parce que léeg-léeg da ngay dem ci téere yi moom da ngay suñuy wax ay wax yoo xamante ni bari na lool waaye nag dëgërut lool borom xam-xam la ñuy wax ne Qaaruun ah mi ngi nekkoon doon waay dañuy wax yashub ibn qaabis yashub ibn qaabis te Moussa mi ngi nekkoon doomu imran doomu qaabis kon ñoo bokk baay mel na maamam kon ay doon baay la xaaru nekk waaju saayikaay joo xam ne yàlla da koo may ci alal lu bari lool waaye gis nga bind bii mbokk yi jaadu na képp ku yàlla dénk am koom lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw aaya jii moom bis bu nekk boo ko mënee xool déglu tafsiram am na solo trop ndax bunt yi seytaane manee bokk na ci am na xadis bu ñëw doonte borom xam-xam yi ñenn ñi dañ ko bàyyi fal xeet wu ne am na fitna waaye sama fitna yi xeet mooy alal yent yàlla bi neewoon na saxaaba yi man de tiituma ngeen bokkaale yàlla sama gannaaw ñu ne ko looy tiit mu ne maa ngi tiit alal dajaloo ci seen kanam ngeen di ko xëccoo ba fàtte la leen taxoon a jóg allahu akbar ak wax dëgg li moo tax keroog ba ñu ubbee kërëb Kisra ba kenn ci saxaaba yi dafa dugg ca pale ba saxaaba yi takbiir ak a yuuxoo ko ñu di kontaan di wax moom muy jooy dañ ko laajee lan lay jooy mu ne dama fàttaliku waxu yonent bi say àddina ngi nii tàmbali ubbeeku suñu bët kon doomu aadama bu nekk am koom la bëgg waaye gis nga koom léeg-léeg gënu bépp maa xam nga ni yonent yàlla bi nee na ñi ñàkk ñi dinañ njëkk a duggee àjjana ñu am ñi juróom fukki juróomi téeméeri at fuqaraa yi dinañ dugg àjjana lu mat juróomi téeméeri ak agniyaa bi doomu loolu nag ñenn ñi niñ koy dégg dañu jàpp ne kon fuqara yi ñoo gën abriya tekkiwul loolu de dalaa bëgg xamal ni boo amul koom bala ñu laa réglé ba ngay jàll da ngay sonn da nga fay yàgg waaye nag nit mën na laa njëkk a dugg dugg gën koo sawar palaas loolu mën naa nekk na xam nga salle bi salon bi mbaa foyer mbaa fa ñu fa ñeen bi nit ñee daje mën nga maa njëkk a dugg ma ñëw jënd palaas bu jar dix mille ca kaw ma toog loolu mën naa nekk kon njëkk a dugg gi tekku ni mooy gën a baax waaye li ñu jublu ci njëkk mooy dala war ni kee moom lu simple la am luñ koy xisaabee lu bari dafay amul mu jaar jàll dem yoonam suñu borom ne inna qaaruuna saay saay bii di qaaruun kaana dafa nekkoon min xawmi Muusa ci niti Muusa foofu rek ci la ñuy njëkk tàmbalee am bind yu am solo yu ñuy jàll inna qaaruuna kaana min xawmi Muusa adresse bi ko suñu borom adressé xawmu Moussa moo lay wane ni kon bokkoon na ci nit ñu baax xam ngeen banu Israil jamono jooju ñoo gënoon ci kaw suuf banu Israil ñaan la doon Moussa ñoo gënoon ci kaw suuf te ca la xaaru na bokk bal am na ci mu arrêté ko ni ñu wax ni tàmbali xaaru na ku baaxoon la am na ñu wax ni mokkoon na tawraat xaaru jàngoon na tawraat ba mokkal am na ci mu arrêté ko ni ñuy wax loolu ah yemul ca loola waaye dafa neexoon baax ci tawraat neex boo xam ne bu jàngee rek nga déglu mu daal di wëlbatiku nag daal di sànku comme na Moussa Samir yi baaxoon ba mu yàgg mu wëlbatiku sànku moom it ànd ak Moussa suñu borom ni kaana min xawmi Moussa ci nit ñi Moussa la bokkoon loolu moo lay wan ni bokk ci mbooloo bu baax tax te baax mooy wax xadis bi sànq moo waxoon sànq man batu abihi amalu lam yulhaq bihi nasabu ku say jëf dafa tardé askan wa nga bokk du la tax nga dabe ak loo ma loo noo mën a mel la kon bokk ci mbooloo mu baax mëtta na moo waaye bokk ca ña baax ña moo mëtta na moo su ma noonu bokkoon min qawmi Muusa ci nit yi Muusa ya waaye fa baga alayhim mu bew ci seen kaw al bagyu mooy bew bew lool wuy loo xamani suñu borom ne wa aataynaahu dénkoon nañ ko ñun yàlla minal kunuusi ci koom koomu àddina maa loo xam ne inna mafatixahu caabi magasin la tanuubu day diis ba wéng la tanuubu mooy day diis jiitaay bay wéngal bil usba ci mbooloo moo xam ne ulil quwa dañoo am kàttan al usba borom xam-xam ñu ni mooy mbooloo moo xam mi ngi tàmbalee ci juróom jëm fukk am ñu ne déedéet mi ngi tàmbalee fukk jëm ñeent fukk waaye mbooloo mu takk ba ma fukki nit ci gàttal mbaa xam ngeen yan fukki nit est-ce que suñ fukki nit ñun ñun ñun xiimoon yi ah ñun xiimoon yi nga xam ni boo génnoon ci yenn réew yi sax mel ni Amérique wala feneen nga xam ne dañuy faral di ponkal ñoom dañuy dàpp ñun ñëpp dañoo feebar am nekk nii ndax ñoom li ñu amee doole te xeet ya may wax ñu ëpp ñoo ñee doole ba léegi dangay ponkal moo xam ni bu leen bu yow magam la lay dóor rek nga daanu de suuf yow kon da ngaa xiiban ci moom ñoom noonu lañ jàpp fekk xeet yi nekk ak ñu leen yàlla bindee waaye ponkal yooyu nga xam ne mel na ponkal rek mën na ñett ci ñun suñu borom mooy boo di ñu jëloon fukk bu ñu jëlee ay paanam ay ay paan sot ci caabi yi di misaal fukki ponkal ñooy mën a àttan caabi yi waa caabi yoo xam ne fukki ponkal yu toll noonaa koy àttan kon magasin lu fa ne kooku bari la woon a alal lool bal sax nag am na ñu jàpp ni xaaruna ëppale alal ci kaw suuf waaye loola man li ma jàpp mooy alquran da ko war da ko da ko wéet ci aaya ji lay feeñ mooy xanaa xamoo ne yàlla alal na ñu la jiitu woon ñu la ëppale woon loo dajale kon loolu moo lay wax ni am na ñu ko ëppale woon ko wallahu alam suñu borom ni wa aataynaaw jox nañ ko ñun yàlla minal kunuz jim koom maa loo xam ne inna mafatixahu ay taabeel la tanu udaa diit bay wengalu bi la osbat ci mbooloo ulil quwa mu am kàttan kon mooy bari la woon na alal torop torop torop torop torop tey jii loo bari la bari la alal nag kon xamal ni xaaru na ëppale na la dañ naan kay lenn lañ mën a wax est ce que xaaru na bu fi jugee ba tey ku am lu toll ni lam amoon am na fi waaw loolu moom buñ ko waxee moom ñu ni amaan amagul suñu bara ma ni il fàttalikul xaanam ko waxee la ko ñeel ko xawmu bu aw nitam laa tafara njàng bu njëkk mu ngi nekk ci fabaraa fa kaana min qawmi Muusa ñaareelu njàngale mu ngi nekk ci fabaraa alayhim mooy dafa beew foofu da nga ci dégg ne kon ndekete alal lu gaaw la ci beewloo ni kalla inna al insana la yatgha lu xew an ra'ahu istagna la yatgha mooy baa lu xew an ra'ahu istagna daa amum koom kon doomu aadama am koom nga ko mën a gaaw ci soppi aw doxalinam beewloo ñetteelu jàngale bi suñu borom ni id qaala lahu man boole qawmuhu moorom aw nitam laa tafra laa tafra nag fii tekkiwul ni bul kontaan ndax kontaan l'islam terewu ko kontaan te gu ànd ak tiitaru la islam di tere kon laa tafra fii bul tiitaru lay tekki ndax tiitar ji muy def kontaan ko waral is ba ko xaar la bu ko def xaw mu aw itam laa tafrax bul tiitalu inna allaha sa borom yàlla laa yuhibbul farixin bëggul koy tiitalu fii di nga ci déggee ni kon alal gaaw na lool ci tiitarloo nit waaye daan ci déggee ni képp ku yàlla wërsëgal am mbokk mu am alal warees na di ko laaye biir bul tiitalu booy ba muy tax lay dox waaye wasul sa am bul tiitaru ndax yàlla bëggul kuy tiitaru ndax yàlla lii mu la jox kaana xayran min addaari yow lam takun shay'an mazkuura yow yow moom juddu woon bay am bay tudd xaaroon banque say loxo ñu demee da ngaa am dara ñu keppal ñu ko fekk ñu fa tus benn yére nga amoon nag ay kuuse ki ngemb rek nga am benn peeru daal am nga ko moo taxit bu ñuy wutal liir daal dañ koy wutal daal yu mel ni kawas benn mbaxana mu bëloone amoon ko ndax mbaxana yan lay solal koo ko may du ko jël xanaa lu dul liir ni yow ndax kenn bëgg ko kon amoo dara yàlla li nga xam ne jaar nga fii nga dem ba jàng fi dox jàng fi raam mu xool la jox la lim la jox laa ko tax bul tiital moo tax borom alal yi war nañoo dégg lii ah bu la yàlla joxee alal sax ngay saar saate ci kaw nit ñi jaakaar ni fi mu nekk nii bu la neexee mën nga sëmb ci kaw bopp nit ñi ah da ngaa fàtte ne amoon na fii jamono amoo dara de yàlla la dimbale ba nga jaar fii ba yegg si fi suñu borom jox lim la jox gis nga boobu yëg-yëg boobu nit ki bu koy am day am yërmande ci nit ñi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala dénku leen lu toll lim la dénk waaye id qaala qawmu laa tatax bul tiitalu inna allaha la yuhibbul farihin yàlla bëggul kuy tiitalu mbokk yi tiitalu baaxut tiitalu mooy di wanewu di jaay affaire di jaay laa kala ah mel ni xaaru na nga xamante ni bokk na ci tiital ba nee nañ yére yi amoon yëpp da koo yokk xam nga li ngeen ko bi tere bu ngeen bi ne yéegal la jëm suuf xaaru ne déedéet baa ma yéeg ba wàcc jëm suuf moom yéegal la jëm kaw mu ne baa ma yéegal jëm suuf mu wàcc yére yi yokk ci tolloo sevre ba yére bi diree am na ñuy wax ni sax xaaru ne dafa yeggoon ci xamadi ba yére yi day diree ba mu yem kii day taxaw jàpp ci lapp yooyu kay taxaw jàpp ci lapp yooyu muy dox pour yére yi mu laal suuf ba nga xamee ni kay bëggoo mu laal suuf loo koy guddal kon moom coono léegi ay nit toog ci ginnaawam su boobaa nag ah am na gaa yoo xam ne ñoom dañuy ñëw di la di la di la taggal say maam boo boo comme ni ma koy waxee boo sëqatee sax ñu jaawale sëqat ak tisli la yarhamukallah ndax bëgguñ leen la métti waaye am na ñoo xam ne ñoo war a dëgg dénk la dëgg te te li gën a am solo ci xolu borom alal mooy di ko fàttali loolu ndax xam nga ni borom alal dañ leen di ragal dañuy di sóoraale ne turam yaa ngi yaakaar ni kii kat boo ko waxee dara la naan jox dootu la ko joxati wala boo xam nga saagar saagar jeeg saaf saaf bi sax la commencé ko waaye dafa am ñoo xam ni yàlla baaxee na leen ñoom faalewul loolu sa alal ji yàgg sa alal ji boo leen boole tàbbal leen ci kàmb faalewul la dañ lay dénk dëgg ragalam yàlla gis nga sa koom mii la yàlla jox say morom ñu ngi fi njëkk laa jur te amuñu ko say morom ñu ngi fi dàq laa liggéey te amuñu ko yàgg diw yéen a bokk ndey ak baay mu njëkk laa judd bu doon mbir mi njëkk ju day tax nga nga jot ca comme kookaa cay jot ah sa baay mi la jur nga xam ni moo leen ngénte xam nga ni bu fekkoon ni mbir mi njëkk bi ñëw wala mën a bari sës sës rek sa baay a koy jël doo koy fekk yàlla mi la ko fi téyel sa baay njëkk laa tudd ngénte la jëlu ko say mag njëkk njëkk laa tudd jëluñu ko say morom kadaalika yàlla jox la ko ah laa ko faa bul tiitaru de yàlla da lay jëlee da lay def test da lay defal test ñu xool inna allaha laa yuhibbul farihin yàlla bëggul koy tiitaru lii ka am solo nga di ko wax borom alal ak a baax dafay dem ay laaxam la ñaaru njàngale bi ñu ne ko wax dafa del génne del joxe del fàggu fii ma aataaka allahu ci lii la yàlla dénk daaral axira kër alaxira allahu akbar ak am solo am na bunt yoo xam ni mbokk yi alal rek ko mën a fëgg gis nga am na bunt yoo xam ni loo bari bari bari iman alal rek ko mën a fëgg bu la yàlla wërsëgalee ba nga am alal bay fëgg bunt yooyee ah boobu dafa fi ma aataaka allahu daaral axira yàlla li ko la def ci alal ay moyen la da nga ko war a utiliser pour sa àllaaxira baax li la nga seetlu benn waay ba sippali ko xam ni kii kat la yasaluna annaasa ilhaafan taarifuhum bi siimaahum nga gis ak moom ci ruq soo xam ni yow yàlla du sa jabar du jabar du sa doom du doom nga jox ko ko ngir yàlla te sàkk ci moom bu ko kenn yëg na siiwee ji àllaaxira li ma bëgg rek mooy bu dee siiw na siiwee ji àllaaxira léeg-léeg nga fekk ku xiif lool nga dimbali ko ku rafle lool nga dimbali ko ku sonn lool nga jàppale ko ku nekk ci ay tolof tolof nga xisili ko man nafasa an muminin kurbatan min kurabi dunya képp ku xisili sa mbokku jullit ci jafe-jafe jafe-jafe adduna yi sunu borom daal la xisili ci jafe-jafe àllaaxira te foofa nga ko gën a soxla ah wabtaqi fi ma ataaka allahu daar al axira sa moyen yi la yàlla jox utilisé ko pour kër ak àllaaxira del sàrde del génne asak bépp bunt boo jàpp ni buñ ko defee rek mu mën laa jëriñ àllaaxira rek su boobaa def kon bokk na ci li ñuy dénk nit ki mooy muy yóbbante ko rek àllaaxira ga yóbbante ay jëf foofa am na ñoo xam ni faatu nañ dem bàmmeel masha allah yàlla dem na déposé nañ ay milliards bari àllaaxira wallahi alazim am nañu yàlla dénk alal ñoo xam ni ay milliards yi milliards lañ déposé àllaaxira allahu akbar am na am na am na mbokk moo xam ni mës na maa nekk ni dafa yore benn complexe bu mag a mag a mag ci complexe yi gën a mag fii Sénégal la bokk ba fi ñu toll nii mënuñu la wax ni diw moo ko tabax diw moomee daal fexe dafa am ay contact ba jox leen tax xaalis daal yegg si nag defal na ko ci xaalisam la ba tey jii kenn xamul ko ko def mu ne nit ñi gaaral ni ku muma ba ko fi nekk gis nga de am na ñoo xam ni ay milliards lañ yóbbante àllaaxira ngay jékki-jékki gis waa joo xam ni allahu akbar yàlla da koy baaxee ni li muy def bëggul kenn xam ca dara dara dara dafa bëgg buy siiw na siiwee àllaaxira ay ay ay ay ay ay complexe ay jàngukaay ay franco ay yu ngeen xamul yoo xamante ne ñu ngi fi ah màgg lool ay hôpital mi ngi fi ay yeneen mbir bi ñoo xam ne ñii ñi leen feeñal dafa ña ña leen def financé la ni sirran lii di alaaniya waaye am na yu nekk sirran ba tey mënuñu la ne diw moo ko def am na mel ni mbokk moom mos a nettali ni benn paanum xam nga noonu doon def moom ci jàkk ji mu doon jullee ci koñ bi ah paa bi moo ko nettali léegi benn maire moo ko doon def paa bi nag après moo ko nettali maire bi faatoo léegi maire moom day bàyyi ba ñëw fekk xam nga jàkkee dañuy faral dem benn pot boo xam dañ cee bëtt xel mu ca dugal xaalis maire day jékki-jékki rek bàyyi ba kenn kii ko rek mu jëm taxal cinquante mille daal dem yoon paa yi jàkka ji moom kenn du xam ku ko fa def ba bi maire bi saatoo paa bi ma nit li lii defe naa moo ko siiwal defe naa su ma juumul borom la mu ne noonu la def rek su jékki-jékki ba mu yàgg rek mu yëkkat ni mu ko def moom kenn xamul lu mu toll te kenn du ko xam amane kooku xëy na bi mu nekk gorom moo tax mu xam ko bi mu faatoo lañ ko doo ko xam gis nga yu mel noonu ak a am solo da nga jékki-jékki rek bindam leetar dem ba di jàkka ja rek sànni ko fa waaye bu dee jàkka ji mel ni suñu jàkka yi benn waaye mooy forom ni fiw dem ak moom bu ko defee fa nga bëgg mu yegg fa du fa yegg loolu mooy musiba bi moo tax suñu borom mu ni gaa yi daal di wax ni ko wabtaqi fi ma ataaka allahu daar al axira xaramaare si kër al axira ala ci da ngay dee bàyyi ko fi loolu joxuloon doo ko ci fekk te wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah comme la koo xam ni loo ko duy lu mu bari bari bari bari bari boo demee xeeb ko bul xeeb xeebal ay millions déposé fa ay milliards yoo xam ne daarul aaxira nga ko jëmale ca jàkka ja ah ci julli sonn ya gasal ñi ñi ab teen defal ñii lee defal ñee lële ak ak am wallahi mu ngi am am na ñoo xam ne dañuy jékki-jékki gasal ñii teen defal ñii pompe defal ñii lële ah am na ñoo xam ni ah xam naa ni day am na ñu alko de am na ñu alko ñoo xam ni ñu ngi gën a dajale rek di defar seen addina defar seen addina naa tabax hôtel boo xam ne dama koy luye am benn société fu ni fu ni fu ni ñoxor jaay fu am xama entreprise nga def fa nekk fa actionnaire affaire bi di gën a bari rek di gën a soof rek tamit nag gis nga alal bu ko yàggee day tàmbalee soof dootul neexati nag ndax fi mu nekk nii moom mën a muus ak a muccat ba gën guddi nga lekk ci ñaari ginaar mënta nekk sa yoon nga amaar yi moom mën a muus ak a muccat ba war ci ñaari oto ñaari peeri dal doo ko sox mukk ñaari yére sax nag day boo ko boolee léegi ñu ne dox baax ñaari peeri daal moom xalaat ko moom yére sax ñu may ngaa tegale tuuti moom waaye ñaari peeri daal moom boo koy def ñu ne dox baax te li nga am ci alal lu muy jëriñ lan la jëriñ léegi doomu aadama alal daan maali maali sama alal sama alal léegi sa alal lan nga ci am lu dul li nga lekk mu reer li nga sol mu raaf ak la nga sàrxe loolu laa gën a wóor de la nga sàrxe mu des loo xam ne yàlla la koy dencal ca compte ya kaste ko nag compte boo xam ne numéro bi yow rek ca kat gis nga li lay tax nga xam ne ñun wallahi bu ñu yàlla dimbalewut danañ sànq gis nga sama compte bi ca maak ba ah wala moo compte waaj balaa gars yi dama dama am compte sax aw ma compte de man gëmuma loolu damaa jàpp ne xaalis bi sax dem banque loolu laa gëm xaalis bu gëm yàlla warut dem banque fu ñuy lekkee riba wala leen dimbali seetal feneen foo ko def compte waaja bokk gis nga waaja kontam double zero quarante six cinquante huit am jooju double zero quarante six cinquante huit am jooju dana fexe ba kenn du ko xam da koy denc code secret daf naa loolu gaa yoo même code secret boo xam ni même sa portable dana yor code secret pour bu kenn xool sa message yi nga ci defam nangam xool sa affaire àddina yi moom koy ko code secret ba kenn du ko xam waaye léegi sa mbiru àllaaxira yi lu tax wutaloo ko code secret benn waaye bu dikk naa la sa code secret double zero quarante cinquante rek nga mën a lakk dëkk bi tey parce que sa compte banque feeñ la gars yi ñëw naan la hey yow kay sa kii sa kii yëpp daaw yow kay sa kii yëpp nangam ja ngay ngay dayee ko xeggale ko na ngay meree bu ñu xamee sa compte banque noonu nga war a meree suñu xamee sa compte banque àllaaxira da ngaa war a bañ su mbirum àllaaxira dama ne bul nangu kenn ci dugg bu ci dugal kenn du sa bàyyi du sa yaay bu keneen gis nga doomu aadama yi yii ñu lay wax ay nax la nit ñi xamuñu bi maa fi bamair wa maa fi suguril alamin allahu a'lamu bi maa fi suguril alamin yàlla moo xam ne ci bënnii nit ñi dañoo jàpp ne ku baax la parce que duñ fanaan ak yow nit ñi dañoo jàpp ne ku baax la parce que duñ tëdd ak yow duñ yendoo ak yow dañoo jàpp ku baax la parce que bokku leen benn nit bu ngeen di fanaan dañoo jàpp ku baax la xamuñu seen leen sa biir dund bi waaye yàlla nga xam lépp nag nga xam ne yatawalla sarairu wallahu yatawalla sarairu yow fexee rek bu nit ñi wax yow wabtaxi fi ma ataaka allah la yàlla dénk même bu dul kooku bari sax fexeel lu sa daaral axira wala tansa nasibaka min dunia mooy sëftir ci àddina rek bu ko fàtte loolu mooy lan mooy timit gis nga booy na seexa borom alal fe naa bayaan mosoon naa fi def benn bayaan bu yàgg ci jàkk bi ci aaya jii bokk na ca la ma ca fàttaliku doon naa ko wax mooy booy nasiha borom alal am na yoo xam ne boo bëggee mu jariñu bul ko ko xañ loolu la indi wala tansa nasibaka min ad-dunya xam nga borom alal ji nga ñëw wax ko joxe al joxe sa alal ji nangam nangam bul fi dajale bul fi nangam bàyyi ko rek bëgg du lekk ginaar ah kay na lekk ginaar parce que am na ko bàyyi ko muy rey xar chaque semaine bàyyi ko yow bu fekkee parce que nga am moom bàyyi ko muy sol badeer yi même bu dee def cinquante mille sax comme am na ko bàyyi ko mu sol bu ko tere gis nga fiq bu am solo yi boo xam ne képp kuy doaat yi war nga koo taal comme ni ko ñii di leerale xam nga walaa ko dafa si ko tamit nag dunya yaa ngi dimbali waa ji pour waa ji dugg mooy gis nga naafaral ji bu ci ëppal nekk bàyyee ko bu fekkee yow moom ak kalaandoo nga doon la jëlul kalaandoo waaye bàyyi ko oto boobu gis nga yow su fekkente ni bâtiment bi nga tolloon dañ koy nenge wala ñu àdduwaat ko ca nga toll moom mu ne tabax biir Dakar immeuble boo xamante ni huit étage la bàyyee ko ko na ko tabax d' accord xëy na danga koy wax booba na barakaat àllaaxira waaye wala tamta nasibata min ad dunia dañ koy may bunt tuuti ndax kat yonente yàlla bi nee na yàlla bëgg na su fekkente ni dafa xéewalal nit mu gis ci moom jeexinte ne xéewal bëgguñu ñu may la alal ju dul jeex ngay sol yére dox yoo xam dina woon lu kenn xamul bëgguñu yàlla subhanahu wa taala may la wërsëg ba noppi ah nga mën a dem jëndi oto boo war koo doon sa way ci arabi kalaam yu xënt yi déedéet utal oto booy war loolu kenn du la ko tere nit ñi ay vax la ñuy solo ay yu ngeen xamul ak seen yi gaa yi xew mooy yooyu nga xam ne sànq mètre ak semaine ba trois cent moom nga toll noonu moom bàyyi ku mu jënd mètre dix mille am na ko parce que am na mètre dix mille ku muy nekk yàq ci moom ba araam ci moom waaye am na ko xam day dagal ci moom parce que foofa la toll nit ñi tamit nag buñ fàttali tolloowuñ wallahu faddala baadakum ala baadin la wax ah li yattaxida baadakum baadan suxriyan la wax kon faw am ñu féete kaw am ñu féete suuf faw am ñuy sol lu rafet rafet lool am ñuy sol lu yamamaay am ñuy sol lu xënte loolu tamit faw nga bàyyi ko xel mooy wala tan ko nasibaka min ad-dunya mooy am na yoo xam ne bul ko ko bañal léegi yow yaa ngi bëgg a wax waa ji ba pare nga bëgg mu dëkk ci kër gu mel ni kër gi nga dëkk sa kër gi bul ko terrasse bul ko kaame da nga koy ardoise comme man kooku da lay daw parce que lan toll loolu la ko yàlla may mu jël ko bàyyee ko ko yàlla may na ko ko mooy wala tansa nasibaka min ad-dunya mooy cër bi nga am ci àddina lekk naan takk soxna yu demee noonu ak yenn yi nga xamante ni xëy na dugg ci cadre yu yàq bàyyee ko ko mu def ko lépp loo xam dugg ci cadre yu yàq nag laa wax waaye nag xam nga am na yoo xamante ni yàq la bu fekkee waa ji day ngénte bëgg saa rek trois millions quatre quatre cent mille ci jamono jii ñu toll loolu laa sax dañuy téel loxo ni ko yooyu ko xamul suur naa kat ñu téye sa loxo gis nga waaye su fekkente ne kat daa bëgg ngénte ah moom bari nañ ko rey la ñaari xaar ba pare mu ne day wuti aw nag bay ko wut na dem bàyyi ko na bi araam de mbir bi day yegg fu mu xaaraam waaye du mu xaaraam waa jiw dafa yaakaar parce que pourquoi muy rey aw nag ku doon alal la am na ay borom alal am mel ni moom bi ñuy ñëw ci ngénte ni xëy na ñaari xaar def na ko muy sunna doy ko sunna néew ba ba ñaari xaar ba ko aate waxut loolu de sa ñaareel dama ne bu amee gileem sax na ko rey bàyyi ko mu rey l'essentiel buñ fa musique buñ fa caaxaat bu ñu lekk di tuuri ci poubelle ya yooyu mooy yàq ga wala tansa nasibaka min ad-dunya mooy may ko mu def lam tolloo moom loolu tamit lu mat a bàyyi xel léegi nag nga jël nit taxe ko da ngay daa bëgg àddina fekk déedéet yi ñu yàq mu dara yow fekk ku fam dimension ba mu toll ak ni nga toll dañoo bokkut moom foo ko fekk matériel lay sol moom foo ko fekk dàll cuir lay sol ngay daa bëgg àddina fekk déedéet am na ko te yëg na ni moom mën na ko kooku du yàq bal loolu mooy sunna ca moom inna allaha yuhibbu ida an'ama ala abdin an yara athara ni'amihi alayhi yàlla dafa bëgg bu defee ah bu la mayee ay xéewal jeexinte ni xéewal feeñ ci yow ngay sol lu baax di lekk lu baax defe nga ne yow mii sa taxal mii nga tolloo ak sa sa sa kii yi suñ nekk sombi yeeg ñu demee noonu nga bëgg waa ji moom bis bu nekk tey kat ndeysaan ñun nag dañoo feebar a feebar da ngay dégg kuñ diw diw moom patron la moom bis bu nekk yàpp lay reere yàpp moom gën a walaat kaana ci li ñu war a reere dafa fekk ni li may waxoon benn bis rek gis nga ñun fi mu ne dañuy dund ci jamono joo xam ne économie bi bi daa daa yàq économie bi ba yàq science bi léegi bu ko defee patron koy lekk saxaaba ya saxaaba ya la am na si ñoo xam ne gudd gudd jot yàpp lañ doon reere di ndekkee meew waaw te ñoo gën a ragal yàlla ci umma bi waaw bu baax sax bu baax saxaaba yi kenn bu ñu am lu mu ndawe ndawe ndawe ñu layal ko gàtt ah kon ñoom xanaa ñoom kon dañ doon noos kon nga bëgg a wax kon loolu du noos c'est que bidaa moo dem ba yàq économie ñu dem ba li waroon a yomb nekk nit ñi dinañ di ko dund tëgg xam nga loolu war na gën a baax ci yaram li benn mbokk waxoon rek mu ne mu ne gis nga sa yaram bi bu dammee yàpp bu dammee mu ne yàpp koy suudee comme ni nga xam ne weñ bu dammee weñ koy suudee wax na dëgg lu baax la ci yaram dam dañu ngi wax ay asar jële daal bi daal naan ko mu wax ku toog ñeent fukki guddi nekk koo yàq say jikko day ñaawa ñu demee noonu déedéet loolu moom amul ndax mën naa toog téeméeri guddi du ko lekk parce que amu ko da ngay dégg wolof nag ku toog ay fan lépp ko mat day tataanoo tak yooyu ñu ñeen ñoo xam naa ci buntu kaf rek lañ ci jublu waaye alaa daal loolu bëgg a xam ko ñoo xam ko foofu mooy am na loo xam bu yàq ci moom waaye nag wabtaqi fi ma ataaka allahu daar al axira mooy tax tey bu añee lii yàpp suba mu reeree soom bi te xam nga tax seetlu nga ni am na yenn xeetu feebar yoo xam ne borom alal rek la ko yàlla def gis nga lekk yàpp ba noppi daal ne ko fuñ tëdd da ngay tey doo entraînement doo toog juróom ci ba yëngatu bu ko defee gën a dugg ne kën nag jaaree fa dee li gën a gaaw a rey loolu bokk na ci jamono benn ko ñaareel moom mooy doomu aadama bu fekkee dafay lekk lu neex lu suukare bu yàggee dafay graisse da yaram day graisse te bu yàgg dafay graisse dafay fab turu yi nga xamante ni ci la traite doon jaar ak nangam tension da koy yomb crise da koy yomb feebar yooyu dermatose jalis lu kenn xamul ngay dégg bu ko defee nag waa ji nga xamante ni moom yàlla da koo def moom moom ndeysaan am baykat la amul dara moom day taaba taaba rek yàlla dana ko dimbali ba am na feebar yoo xam ne moom bopp bi metti tànk bi metti jiit jaama fett yooyu ci jàpp ne mooy musiba ba am na koo xam ne dana bu ca jotoon jiit gi fett ba ñu dugg ko léegi mu ne moo ko gënal fi ne lii ko dal nga xam ne sax semaine mu def hôpital moo tax doy loolu la yàlla séddi ak a am solo kon waa tan sama suba tamit ak dunia mooy bul fàtte sa ci ci àddina ñetteel bi di njàngale mu ne ko wa ahsin kama ahsana allahu ilayk ñu ne ko rafetala comme ni yàlla rafetalee jëmi ci yow ak am solo gis nga doomu aadama yàlla dafa rafetal xoolal yow yaa ngi nii tiim nit ñi yaa leen ëppale waaye yàlla mi ngi la tiim moo la ëppale gis nga nit ñaa ngi nii yaa ngi yilif di leen liggéeyloo yàlla ngi nii moo la yilif di leen liggéeyloo gis nga nit ñaa ngi nii yaa ngi tàggal salaire di leen bay yàlla ngi nii moo la tàggal salaire alal bi yëpp jox la ni yàlla rafetalee ci yow bu baaxal say mbir da nga koo war a rafetalee ci nit ñi ñëpp nag oyofal sa bopp bañ a tiitalu te gis nga nag borom alal bu wàccewul laaxam rek lu mu def ñu ne day tiital te amaana mu def sax loo xam tiital jublu ci tiitalu waaye lu mu def rek ñu ne day tiitalu lu tax parce que ñàkk yërëm nit ñi te kat kaay ma xamal la ñaar nit ñi nag boo leen yërëmee rek ñu yërëm la boo leen bëggee rek ñu bëgg la li la nga gis borom alal nekk ci koñ mën a dimbali waa koñ ba yëpp yëpp yëpp waxuma dimbali wu leen asaka day jot mu di ko génne joxe ay téeméer rek ay yu gën xamul man damay wax ne bu xaar yi amoon ñuy àtte l'islam ay tagari seetaan yooyu xaar yi da koy jël teelloo ko ko mu seet lu mu def yow da nekk dana génne sa waay quatre millions cinq millions six millions asaka nga di ko ay tas dërëm ay fukki dërëm ay ay ay téeméer loolu muy jëriñ nit ñi asaka dafa bokkoon ci li ko taxoon a jóg mooy xeex pauvreté ñu dem ba seet benn waay bu nekk ci koñ bi sonn lool ñu gis ni moom baykat la te am na tool bu baax asaka bi génn te li may wax lu la borom xam-xam yi wax asaka bi génn ñu ñëw ni ko yow lan nga yaakaar ni boo ko amoon tool bi dana baax mu ne man daal bu ma amoon engrais ba suuf si dekk ma am juróom-ñaari poti tamaate am juróom-ñaari poti nangam am nangam ndax fi ay dër la sama teen bi ñu gasalaat na ko su boobaa islam maye na ñu defal ko juróom-ñaari côté tamaate ak lañ koy jëndal defal ko teen ba jëndal ko engrais ni ko looloy asaka ci demal sa yoon kii bu dee laaj asaka lii moo taxoon ci jamono Amar ibn Abdul Aziz ñu dema dema dem ba dañoo génnoon budget takk jabar parce que lépp a jeexoon alal ji daa baax woon noonu ñu def liggéey loolu ba mu jeex dañoo dem ba bu ñu waaye jox mu ne am na Amar génne benn budget mu ne war leen célibataire yi xam naa bu tamit suñu kaay dana neex lool war leen célibataire yi ñëw ku ñëw ni oma jabar rek ñu ñaata la soxla kan nga ni juróom fukki junni ñu ni jox leen parce que alal jaa ngi ne waxtaan te loolu lu war a mën a am la ci réewu jullit ñi ndax jullit ñi am nañ alal moo tax wa ahsin rafetalal kama ahsana allahu ilayk comme ni yàlla rafetalee jëm ci yow bi ci dox mu ni wala tabgil fasada fil ard mooy bul dox di yàq ci kaw suuf ndax xam nga ni borom alal yàq na kaa yow borom alal yàq na kaw yow ba xam nga ni yow bu fekkente ne yow bu ñuy wax ñaari nit rek nga génne fu ñu war a maye téeméeri un million nga fay maye loolu yàq la loolu yàq la de ak suñu ndaje mi yow lañ ko tuddee ndaje mu ñuy tuddee waate mooy lan nga yëkkati ay million joxe ko gis genre yu mel noonu loolu ak yàq la mu ne ko wala tabgal fasada fil ard inna allaha tabaram yàlla laa yuhibu al mufsidin bëggul ab yàqkat ñu ngi taxaw foofu ndax waxtu dem nañ ñu ngi yàlla dafa ñu tawfiq fi ñëwal axira yàlla na yàlla subhanahu wa taala nangu ñu baaqiyaatu saalihaat yi saalihaat al amali wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi